mais euh, keroog dañoo ñëw ñu gis Eumeu Sène mu tuus ñu gis ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers 2 mu tuus mais keroog ñoom ñaar ambiance bi am na Balla Gaye ñëwaguma ci wàllam ñëw yokku yokku rythme bi saa Thiès ñëw Bomba ji ñëw mais keroog ñëpp a mere Lac de Guiers ak Eumeu Sène surtout Lac de Guiers est-ce que jow boobu dégg nga ko Père Diaw. waaw man du wax ci cas damay dellu si ci wàllu tuus mi mhm. ci stade bi nga ma doon laaj. may révéler suma xalaat ndax sénégalais laa. ci réew mi laa bokk sport yëpp ma tànn ci làmb kon lépp lu ñuy wax ci làmb daf may intéressé te defuma ci benn fan. dama bëgg a CNG mi ñu jox làmb jox ko lu toll ni stade bi dénk ko làmb président bu bees bi komba bu am ba jeex mu jàngat ci cummikaay bu ko mbër defalati boppam nda ko seen CNG def ci programme bi plan A ak plan B. tëggkat yi plan A ak plan B deuxième combat plan A ak plan B ba ci dernier combat booy ñëw ñu jox la sa fiche soo ñëwee fekk ñu notifié la takk ko ci ceer yi barrières yi nga xam ni fii nga war a dem mais fii ñu ngi bàyyi sëriñ si di joxe fu mbër yi war a dem làmba dana ma sa yàqu ci côté boobu te loolu na ci Bira Sène jël ay responsabilité bu doon njiit rek di xam-xam rek ñu ñi ñoo war a jiite CNG ndax dañu cee yàgg xam ko dund ko li ñu def ci làmb bu na ko delloo woon ñu jënd heure plus un ay centaine de millions lañ ci def ci wàllu billet kon Bira dañ koy ñaanal bonne continuation mais dañu bëgg mu veillé jël ay responsabilités ndax mbër yi ku leen bëgg yor dangay doon jàmbaar ndax lu leen neex rek la ñu xam Bira na nga jël say responsabilités sur tous les plans Alioune Sall dara Alioune Sarr dara yàggalu ko fi lu dul dox ci dëgg yor yi mbër yi mbër yi seen jukko kenn mënu ko accepter. ay millions lañ leen di fay ñuy dundee nu leen neex waxuma nga jóg di xeex mbëri mais na nga jóg teg ay ay règlement yoo xam ni mooy jëmale làmb ci kanam biraa ñun loolu lañ lay wax problème mu cummeekaay yi na jeex problème mu fi géwél yi di nekk na jeex nañu fexe nu ñu sécuriser stade bi ba nga xam ni ëllëg mbër yi ñu mën a bëree dem ci jàmm.